commission sport bu assemblée nationale amatul njëriñ. <laughs> amatul njëriñ ne génn ci euh, bureau assemblée nationale amatul njëriñ. waxu fa dara problème mu sport. exactement aujourd'hui ñi fa nek ñëpp nañu démissionner parce que dès ñu fa dañ leen wax euh, xoola commission sport. te yow ah, mii di amna fa. Amna fa <laughs> nañ leen nañ ou bien nañu bàyyi lool lool nañ ko génne. ñu bàyyi